fas yéene ñu wanalee ak kii di Yacine kone euh, moom nag mooy coordonnatrice euh, projet bi di Andi Eco. noonu ko seeti koo xam ne jàmbaar la ci ba tey rubrique biñ ma dénk muy décomplexé. Mhm. Euh, mi ngi tudd Yacine Koné Yacine kone nag dem nañ seeti ko maa nga woon Medina ak moom li tax ñu demoon fa moom laa bëgg a dégtal téléspectateur yi ñu dellu si waat. ma amee un an et demi laa polio mais terew ma wàññi du dara ci man parce que jàngal nañ peut-être tardivement je suis allée à l'école à l'âge de 9 ans man a sama ñaari frère yu topp ci man mais loolu empêché wul sama engagement may ñafe dem naa ba sama bagal lépp am nañ ko mais am je suis analyste programmeur de formation pour signaler mais quand même yàlla moom ma xiir ci association bi mu dugg si ci benn projet boo xam ne da doon xeex yalwaan ci dakaar mu dugg ci projet boobu yor jigéen ñi li nga xam ne dañu ànd ak laago fexe ba ñu am formation bu qualifiante mën a dund si li ñuy liggéey li ñuy jàng jéem ci am activité boo xam ne seen loxo du ñu dem ci mbedd bi di tàllal seen loxo ci noonu laa duggee ci projet bi projet bi bi mu jeexee aussi sama association buy association nationale des handicapés moteurs ñu ne am nañu lu ñu xam am nañu lu ñu mën léegi lan la nañu mettre benn pla en place benn unité de production moo tudd nii andi éco bañ ko mettre en place am na ñu ñu ci doon jàppale benn bailleur bi mu def bi mu matee at ñu dem bàyyi ñu mais bi ñu demee ñun dañu ne déet am na lu ñu xam lu ñu mën formation bu qualifiante mais nañu demal suñu bopp depuis 2004 ñooy 2005 du moins ki doon jënd matériel ki doon jox xale yi paas di ma fay nekkatu fi dem nañu ñun ñu jël suñu bopp en charge depuis boobu macha allah ñu ngi sant yàlla bu baax li ci ëpp ci projet ci GIE bi ay ay jigéen lañu denk jigéen metti na àndax laago day gën a metti xeebaate yëpp da ciy am mais xam nañ suñu bopp am nañu une formation qualifiante moo tax tey jii ñu nekk si di góor góorgóorlu depuis janvier amatuñu fu ñu liggéeyee on s'est dit amatuñu fu ñu liggéeyee mais euh, sama kër mi ngi fi parce que comme maay coordonnatrice yi sama kër mi ngi fi dama fi dund ak sama yaay ak samay frères et sœurs mais quand ñu nangul ma ko ñu nekk fii ci kër gi di liggéey bu ñu amee production fi la ñëw produire gis nga ko sànq am nañ def ñu ngi doon cuub léegi bu ñu bëggee cuub fi la ñuy cuub bu ñu bëggee ñaw tamit suñu machine yi sax dañ ko jël dénkaane ko si benn atelier bu nekk fii dañ koy dem jëli ñaw ci delloowaat ci mat xam nga loolu metti na mais quand xam nañ li ñu yor lan la bañ a toog que ñii ñëpp nekk si ñii géejewaay la ñuy joge ñii parcelle la ñuy jóge ñii Medina ñii Gueule Tapée ñii Wakaam xale ñi nga xam ne dañuy dund ak handicap toog seen kër ñooñu laay waxal li may wax mooy ñi nga xam ne jotuñu jàng école te bu leen des na ñu nekk ci kër yi ñu génne leen parce que formation yaa ngi fi en bagage ñun ñi sax am nañu ay formation yoo xam ne mën nañu leen former encore soxlaw ñu yeneen ñi nit valide sax di leen former ñun am nañu compétence beeg expertise bi ñu fay leen ci loo xam ne duñu fay dara on est prêt à le faire pour que vraiment ñu am métier di profité occasion bi aussi di lancer un appel ñi ngi nii toog ci kër gi di liggéey metti na mais lu ñu buggoon am foo xam ne local boo xam ne ñoo ko moomal suñu bopp foo xam ne dinañ fa mën a def am suñu salle d'exposition am suñu sale de couture am foo xam ne dañ fay cuubee ak tamit di former yeneen xale yoo xam ne ñoom ñu dul handicapé parce que tamit aspect inclusif la ñu wax l'inclusion la ñu wax ñun kese duñu dem ñun ak ñi am laa wax ñu amul laa ñooy ànd dem parce que on est des Sénégalais à part entière et puis on peut participer au développement du pays Yacine Koné doon handicapé terewu ko euh, am jom te gis nga euh, li muy liggéey ndax fekk nga ko fa. Mhm. et puis euh, jàmbaar la moom Yacine. fekk naa leen ñu ñuy liggéey à l'œuvre même. Mhm. ñu defal ma fa loo xamante ni am na solo gars yi gis ni ñoom ñoo koy defal seen bopp mooy bokk na ci li nga xamante ne mooy fulaar yi ñu yore nii ñoom foofu ñoom dañuy defar ay accessoires ay colliers ay t-shirt dañuy defar ay chemises yu rafet waaye itam dañuy defar ay napp ay drap ay écharpe yàpp yu yu rafet yu góor yi moo nekk nii oustaz bosam moo nekk na le donc mu nekk jigéen waaw waaw dëgg la mu nekk koo xamante ne ni Yacine Koné coordonnatrice la membre association nationale handicapé moteur du Sénégal allahumma amin donc mu nekk rafet nag waaw yàq sama teraanga bëgg naa ko de VIP quinze jours def yàggul ah xanaa ñàkk ku ma ko may rek quinze jours di nga ko am ci darajey rasulullah kon ren dinaa dem insha allahu taala gis nga loolu ci VIP bi laa demee ku baax ci VIP bi ku baax te duma yàgg quinze jours lay def quinze jours ngay def ah am na ñoo xam ne onze jours la ñuy def ñu visite ah yàlla baax na kon xanaa ma tàggoo rek. tàggoo ah maa lu mu wax. jéeli bàyyi ñu ñu ngi liggéey en direct commencé nga min léegi dangay ngay wax ak ñun pendant que tu filmes arrêtel bu kenn yàq sama teraanga damay ñaan ñaata baal ñu rek dem màkk dem màkk dafa neex et puis man kaala daf may jàpp ah. sama ñibbisi rek ah boo fa demee boo fa demee xam ni benn VIP do jaaj bu rafet nday ndeysaan mooy rasulullah ujaaj bu rafet ujaaj bu rafet bu ma ñibbisee dinaa nekk ujaaj bu rafet yàlla bu mu um fu benn julli amin amin oustaz waaye man wóor na ma ni bis boo fa demee mhm. at jot di nga dem. aywa aywa aywa mais bul fàtte pikiiru bi de da ngay pikiiru. Ah, bu leen yàq mais nag le 10 bii la pikiir bi jeex. le 10 bi ñi pikiirugul ñi bindoogul nañu dem bindu. le 10 bii la commission bi di arrêté. ku demul ku bëgg dem Makka le 10 mai bi juróom-ñaari fan a ci des. ku bëgg dem Makka boo yeboo nga dem bindu ji. soo bindu jiwul bu weesoo am na ñoom dañuy xaar ba koor gi ñii après koor ñii maye billet maye leen bii yi léegi fii ak juróomi fan ñii bindu war a dem dem leen bindu ji le 10 la ñuy arrêté mu jeex boo bëggee dem déwén ngay dem barki première dame bu Sénégal yàlla baax na yow di nga dem yaa ngi mel ni professeur wala pap <laughs> professeur rek nga may jox instant. barki ajaratu Mariam Faye baax yàlla baax ujaaj bu rafet. loolu moom ala kulli yàlla. ujaaj bu rafet ujaaj bu rafet ujaaj bu rafet kon mooy ñëw. Ajaratu Marème Faye Sall. ku baax présidente Adja Aminata Tall. wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi. wallaahi dafa bu rëy. wallaahi wallaahi. wallaahi maa maa maa Cissé euh, mu iñaan mi nee na ala kulli aal man du leen topp. bu ñuy dem mais man VIP laay laay demee. donc yéen bu ngeen jaaree ci géttu bay man VIP laa jaar xam naa maa leen di jiitu te maa leen di njëkk a ñibbisi bu soobee yàlla kon mbokk yi tàggoo naa ren damay aji. madame laaj dinaa wéy. a non mais yàlla baax na donc lu indi ñuy wax ci demu màkk gi écharpe yi euh, Yacine moo ñu ko may ak fa muy liggéeye ñaatam demoon seeti leen. Mm-hmm. Euh, ci euh, jàpp sa fula c'est vrai que ñoom dañu am fula wax naa léegi nii mm-hmm. nekk na handicapé mais mu ngi def ay produits yoo xamante ni ay yére yoo xamante ni batik la. Mm-hmm. ay écharpe yoo xamante ni c'est très beau. yii dañuy gis ni tubaab yi dañu ko jox valeur waaye comme daf ñoo jege peut moo tax waaye baax na itam nit ñi di dem ci ñoom pour dem di jëndi ñuy dëgg la li tax sax ñu nekk ay jàmbaar mooy dafa am feneen fu ñu njëkkoon nekk. Mhm. muy euh, front de terre daal di fay euh, bi ñu 2002 lañu def formation bi 2004. la ñu commencé liggéey bokku ci noom bi ñu bokkee ci loolu tamit euh, boroom kër gi ci boppam bi mu génnee àdduna ñi moom kër gi ñi ko donn ñoom dañoo jaay kër gi donc loolu tax actuellement Yacine GIE bi daf ko yóbbu. këram la ñuy exposé këram la ñuy jaayee waaye dañoo am ay client li nga wax noonu dafa am solo parce que lii nii Pape man mi fa dem seetaan seetaan sa gis ñu koy defar pur coton la ba pare du yëbb mën nga ko teg si yëre bu weex mën nga ko teg si lu nekk nee ñi ñu jaay ñi nga xamante ne dañ ko xam dañuy jóge dëkk ak dëkk ñëw di ko jënd si parce que ñoom li ñuy li ñuy def nee dañ ko xam dañ ko jàng donc mu nekk lu am solo loo xam te ni looy def rek na nga fekk nga xam ko mën ko saak yi tamit ñoom ñoo koy defar am na ay vide poche yoo xamante ne danga koy def ci sa nekk sa toilette wala fu mën di doon looy bañ a sànni loo bañ mu réer la rek nga dugal ko ci poche yi waaw mën nga mën maaw mën nañu ko génneel ay vide poche la donc mooy yoo xamante ne dañuy def bant bu tilimee bant bi ngay dindi rek daal di jël fóot ba mu set dilaat wékk euh, mu nekk lu rafet am na ay chemise ay napp yu carré kii bu la neex waaye dañuy nekk def micro jardinage euh, micro jardinage bi génn nañ ci tuuti rek parce que ñoom fi ñu nekk ni actuellement dafa xat ah. mais ñu ngi liggéey mais daf ma wax lu am solo mooy nasaraan si ñoo gën a xam seen liggéey te nee na am na société yoo xamante ne ni bokk na ci société générale mhm. bu Sénégal nee na ki fa nekkoon di Sandi Xulio mhm. nee na dafa nekkoon koo xamante ne yi invité woon na sax suñu président directeur général Youssou mhm. Ndour nee na moom lépp lu mu doon def cadeau yi fin d'année arbre de Noël lépp lu ñuy def nee na ñoom dañuy ñëw commandé foofu moo leen ko doon jaay mais nee depuis bi mu fa jógee ba léegi affaire yi dafa changé amoon nañu boutique Petersen également waaye boutique boobu tam centre commercial dafa am contentieux donc ba léegi seen bagage yaa ñu tëj te jiw ñu ko ba léegi donc mu nekk ay xam ne ñu ni ko waaye taxawul ñu taxaw ba léegi ñoo ngi liggéey mhm. ba léegi ñu ngi liggéey nee na jàppale na ko jëkkëram jàppale na ko waa këram ak ñi nga xamante ne ay dëkkandoom lañ ñi muy liggéeyandool nee na day sant ñëpp waaye moom nee na dafa bëgg gaal gi nga xamante ne day dem te Sénégal nee nañu gaal gi ñu teg ñi ji réussir di ci dugg nee dañuy jiitu ci biir nee na dugg ci ci kanam lañuy ñuy toog donc loolu seen credo la te loolu nee na dañ koy ñafe bis bu nekk ah, ah. nee dañ ko jàng mën nañ ko te ñu ngi koy def donc nee na ñu ngi xaar Sénégal yëpp ñi ko xam nag fu ñu nekk dañ leen fay fekk di fàttali rek di gars yi ñu ngi rue 39 angle Blaise Diagne ci Médina hmm. képp ku fa dem di nga leen fa fekk waa Andi Eco euh, ñu ngi foofu ñoom Yacine Koné ak ñëpp ñi nga xamante ne ñoom lay liggéeyandool toll nañ ci 15 euh, personnes fukki nit ak juróom waaye ñaar ñi rek ñoo ci góor ñeneen ñi ci des ñëpp ay jigéen lañu. voilà donc artisanat de personnes en situation de handicap comme quoi euh, jom moom ku ko amul sax doo nit segam euh, ku laago wut euh, la waxatuma la ku amee laago ak bu mu ci mënti doon mais ñoom am nañu jom ba fexe def seen marque nit yi di dem di jëndi et on demande encore dem di consommer li nga xamante ni ñoo ngi koy def donc artisanat de personnes en situation de mën ngeen leen jàppale ñoom ñu ngi Médina Yacine euh, Koné fa lay exposé pour ñi nga xamante ni ñoo fa bëgg a dem. dëgg la mi euh, angle Blaise Diagne euh, soo demee ba foofu rek gars yi dinañ la tegtal ndax ñëpp ràññee nañ ko foofu muy jigéen bu jàmbaare. Mhm. donc ñu ngi koy encouragé amoon mbégte nag tey jii dem mhm. rencontré ko andi li ñu andi tey remercier ko également ci cadeau yi parce que waa plateau bi yëpp la jox donc ñëpp jot nañu seen ay ay cadeau donc ñu ngi koy remercier bu baax. oustaz jàmm bu nangoo dogal mhm. du am complexe. ci laaj Pape comme li ma la wax léegi rek ni euh, yàlla lu mu namm ci nit ki rek dafa war hmm. te lu mu yeggale rek dafa jot te lu jot yomb ñu ni bu sa bëgg-bëgg teewee bëgg-bëgg yàlla teew da ngay bàyyi sa bëgg-bëgg topp bëgg-bëgg yàlla hmm. dégg nga wax hmm. sa bëgg-bëgg teewee bëgg-bëgg yàlla teew bàyyil sa bëgg-bëgg topp bëgg-bëgg yàlla xam ni bu dul woon bëgg-bëgg yàlla doo fi toog bay ami bëgg-bëgg kon yàlla lu mu namm rek daa war lu mu namm ci nit ki rek dafa war yenn saa yi di judduwaale laa ko yàllaa ko ko teg. Mm-hmm. waaye yenn saa yi nit ami cër yu normal dem ba mu yàgg laago dab ko. dëgg la olof ne laago du wees. du wees wallaahi fii ak jant sowul juubu weesagul. Mm-hmm. kon nit ñi la yàlla bindee ak li yàlla dogal ci yow na nga ko nangu man yàlla inna allaha maa sabirina mm-hmm. man yàlla maa ngi ànd ak way muñ muñ ñi sina alin waxoon ni wa isa buliita bi nakbatin mu ni fasbir laha mu ni man zaara ayta musallaman la yunkabu mu ni wa isa buliita na toof na la bi nag batin ci tiis bi nag batin ci problème nga bëgg a jug mënoo dox tolof tolof dikkal la coono àdduna dëkkmal la laa ko dab la laa ko dal la mu ni wa isa bu liita ndéem nattoof na la bi nag batin ci tiis yooyu mu ni fas biir la nanga ko muñ mu ni man zaara ayti man laa yun ko bu ana kan nga gis mu mucc te na nattoofunu ko am na koo xam ni yaa ngi ko mi ngi romb ak otom di dawal loto ba rafet loolu mm-hmm. waaye bu sañoon sax kooku laago dara mettiwu ko waaye am na laago noonu lay mel. bari na koy ñee fekk am na lu la ci biiram boo xam ni am na ñeneen ñu muy ñee kon nit ku ne fi la yàlla euh, classé ak li yàlla dogal ci yow nangu ko te gëm borom bi subhanahu wa taala xam ne aljana moom moom ñëppay dox normal wallaahi moo tax may remercier Mado bu baax a baax ndax moom moo tase woon ak ñoom ci benn euh, maanaam exposition bu mag mm. euh, kon jël seen contact ñëw indil ma ko donc maa ngi koy remercier moom tamit di wax oustaz mu ñaanalal ma ko bu baax mais kol yi rafet na yii moom il faut ma dem ànd fa ak alaaj Pape ak alaaj Mamadou Mbaye Gar mi mu bëgg àdduna mi ah. nga xam ne moom yëre bu nekk kolam ak professeur Massamba nga xam ne xam nga professeur Massamba style professeur la style professeur la style professeur xam nga deux tons yi bëriwul ñu koy def te di ko réussir naa ko jëndal juróom moom sama papa la voilà mi ko jëndal juróom am na ay napp de table de kii boo maanaam longueur kii boo bëgg mm-hmm. carré am na fa yëpp lépp loo soxla am na fa yu rafet macha allah non mais il faut que seet yàlla barkeel ko ba pare original la macha allah am nañu mbégte soxna Yacine amiin merci ñaatam ñu ngi lay gërëm bu baax ci euh, Yacine mi nga ñu wone leel ak ay produits yu am solo yoo xamante ni moom mu ngi koy euh, defar Fall je rappelle encore que euh, dafay def lii ñu tuddee artisanat euh, de personnes en situation de handicap 9h57